li nga xamante moom mooy exaction euh, bu force de l'ordre yi def jëmale ko ci askanu Sénégal am na ci ay ñoo xamante ne daal bind nañ ko maanaam am na ci ay courrier yu bëri yoo xamante ne toll nañ ci junni. ay preuves. c'est un avocat. et en tant qu'avocat man j'aurais euh, peut-être souhaité que ce soit les organisations de défense des droits de l'homme au Sénégal mm-hmm. comme Africa Jam Center bi génne benn benn benn. téere pour xam le ni hmm. moom lii la gisee wàllu démocratie Sénégal lii la gis ci wàllu yooyu ak yu mel noonu am na ay ay ay ay kuréel yoo xamee ni ñoom ñooy saytu ndegam effectivement am na ay exactions yu jóge ci force de défense et de sécurité bu force de l'ordre jëm ci askan wi c'est pas un avocat bu nekk fële ca France xamul lu xew Sénégal hmm. ne ni dafay plaider benn dossier ne ni yónnee nañ ko ay mille bataaxal man je ne prends pas pour argent comptant ce que ka nekk bitim réew xam nga kan laay mën a dégg ñu ne ma mu euh, Moundiaye Cissé bu 3 ONG 3D def na ci benn gëstu ànd ak ñu ma àndal ñu ne Birahim Seck def na ci gëstu gis nañ li fi ñu ne ma Alioune Tine def na ci gëstu gis nañ li fi xew ñu ne ma euh, Amnesty International euh, commission comité de de défense des droits de l'homme Pape ak ñeneen ak ñeneen ñu ne ñi ci biir Sénégal def nañ ci gëstu comme ni ñuy waxee ne ci biir prison yi ñu ne la par exemple euh, observatoire bi yore wàllug saytu li xew ci biir euh, lieu de privation de liberté yi def nañ ci ab gëstu man ñooñ laa mën a déglu mais du ma déglu que ka nga xamee ni hmm. avocat nga mais pare nga am foo féete ndax avocat nga buy layal kan Ousmane Sonko comme avocat bi layal euh, Mambay di tubaab Mambay ñaa di tubaab la mu wax man gëw ma ko gis nañu sorti également yi xuwaan di def Birahim à chaque fois ak ni muy dalee ci ci suñu institution yi aussi. parce que mm-hmm. ñoo ko may. Mm-hmm. Sénégal ko may. Mm-hmm. su ma nee Sénégal mooy l' central c' pas parce que tu es avocat quel soit foo mën a jógee même sénégalais. nga am sañ-sañu dal ci kaw suñu institution mais li ko indi mooy li Mansour doon wax sànq. parce que dañoo nësaxal suñu institution. dañoo dem ba fulaalutuñu suñu institution ci biir ñun bu ñu fulaalul suñu institution waaye ku jóge bitim réew daf ñuy du ñu fulaal mm. c'est pas autre chose c'est-à-dire tey man sénégalais lambda wala citoyen sénégalais wala homme politique fu mu mën a bokk mm. ma ñëw je ne jox ma benn gëdd justice jox ma benn gëdd force de défense de sécurité jox ma benn gëdd président de la république ba pare nga ne non yow mi jóge bitim réew ñoo jox gëdd samay président wala samay justice wala samay force de défense sécurité déedéet dañu naan ah kii comme euh, fulaalul njabootam kay man buñ jógee bitim réew du mu leen fulaal ñaari nit ñuy nekk ci benn kër ñu gis ni respecté wuñu seeni waajur respecté wuñu papa respecté wuñu yaay mm-hmm. ba pare keneen jóge bit ci biti ñoo respecté seeni euh, xaw a am lu ñu wax ak seen i parents ñoom ñu xuloo ko dañu la naan yow li ñu gis nii li tax ñu bañ a respecter say parents yow yaa ko njëkk parce que yow respecté yow say waajur te loolu moo fi am exactement si tubaab bu jógee fële bitim réew naan nii la demee réew mi euh, fii am na lii kii me montre des preuves mais que l'état central je le répète l'état central prenne ses responsabilités ndax tey bu ñu ko ñàkkee fulaal mm. état centrale moom moo def lu tax ñu ñàkk ko fulaal bu ñu ko ñàkk bu ñu ñàkkalee fayda lu état centrale central def di wax c'est parce que moom moo deful loo xam ne war na ko def la preuve avec cette histoire d'autopsie un ministre de l'intérieur avant de parler ou de communiquer ba signer ko mais garantie au moins li nga yore ci information war ko joxe information yu wóor la lu fiable lan moo la tere nga ne am na ku dee la gis mooy ni am na lu bënn yaramam ubbi nañu enquête def nañu autopsie dañuy xaar autopsie bi noppi ñu mën a xam lan moo ko waral waaye nga ñëw ne ni eh, arme blanche a ko rey nga ñëw ne kenn ni hélice eh, pirogue moo ko rey autopsie yi ñëw wane ni li nga wax ñaar yëpp amu ci benn bu ciy dëgg mais attention loolu moo tax nag du ñu fulaal suñu état du ñu fulaal suñu institution parce que au sein de nos institutions mm-hmm. mais lu leen neex la ñuy bind wala ñu lu leen neex ñuy wax wala ñu koy doxee te loolu du yoon aywa mu ngoog Thia Laloum ñu jeexal ak wàllum tàggat yaram tey nag